la revue de presse de Souleymane Ndiaye yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye dal leen ak jàmm dañ koy door ak yéenekaay bi nga xamante ne moo di Sud Quotidien Sud Quotidien moom mu ngi wax ci euh, Ousmane sonk ak procès mbala ca tukkee mu ne euh, Ousmane Sonko dans la tourmente lii la yéenekaay bi wax di wax euh, ñàkk gi nga xam ne ñàkk na ko ci ñaari procès yi nga xam ne nii am démb Ah, yéen kaay bi di Les Échos moom ba tey mu ngi dellusiwaat ci li ah, tukkee ci affaire Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko fomp na ñetti défaite ci benn bës Sonko essuie trois defet en une journée loolu la yéen bi di Les Échos wax mu ne fomp na ñetti défaite ci benn bës ah, yéen kaay bi di Vox Populi moom ba tey mu ngi ñëwaat ci ñàkk Ousmane Sonko gi mu ne Sonko père et lii la yéenekaay bi di Vox Populi wax di wax ñàkk gi nga xam ne ñàkk na ko ak li leen renvoyé ci tribunal grande instance bu Dakar ah yéenekaay bi nga xam ne moom moo di enquete moom ba tey mu ngi ñëwaat ci Ousmane Sonko di wax na Ousmane Sonko double revers mu ngi wax ñàkk gi nga xam ne ñàkk na ko ci ñaari kii nga xam ne waroon na tukkee ci ñaari tribunal yëpp di cour suprême ak li nga xam ne moo jóge ci cour euh, de la CEDEAO yene yéenekaay bi di la Le Quotidien moom ba tey mu ngi wax neen Ousmane Sonko di ñu dellusiwaat ci ñàkk ji ñàkk gi mu ñàkk mu ne double peine pour Ousmane Sonko li yéenekaay bi di Le Quotidien moo ko wax. yéenekaay bi nga xam ne moom moo di wal Walf Quotidien moom nee na double revers pour Ousmane Sonko mu wax euh, ñàkk gi nga xam ne Ousmane Sonko ñàkk na ko ci ñaari euh, procès yi nga xamante ne nii am na démb li war a tukk li waroon na jóge ci euh, Cour suprême ak li nga xam ne waroon na jóge ci cour. la CEDEAO loolu Walf euh, Quotidien moo ko wax ay yéenekaay bi di source a moom di mu ngi wax ci risques yi nga xamante ne ni mun na tukkee ci mbiru Ousmane Sonko euh, mu ne les risques encourus par Ousmane Sonko risques yi nga xam ne ni Ousmane Sonko mën na ko jëlee euh, ci ëllëgu politique am yéenekaay bi di laas moom ba tey mu ngi waxaat ci li nga xamante ne nii moo tukkee ci mbiru Ousmane Sonko mu ne le miracle ne s'est pas produit maanaam liñ doon xaar yàlla deful mu far demee noonu ci ñaari atte yi nga xam ne yëpp doon nañ ko atte ay mbiram di cour de justice de la CEDEAO ak li nga xam ne nii moo waroon bàyyi ko ci cour suprême yéenekaay bi di l'exclusif moom di wax ne Sonko per partout loolu la wax mu ne Ousmane Sonko ñàkk na euh, fépp maanaam dafay wax ci ñaari procès yi nga xam ne nii tukkee ne ci ay mbiram. yéene kaa bi di vingt quatre heures moom ba tey mu ngi wax naan ci mbiru euh, cour suprême mu la cour suprême recale Ousmane Sonko maanaam cour suprême moom recalé na Ousmane Sonko lii yéene kaa bi di vingt quatre heures moo ko wax. yéene kaa bi di la tribune moom mu ngi wax naan la cour suprême casse tout mu ne cour suprême bi moom annulé na décision bi nga xam ne si Faye joxe woon na ko mu nekk euh, faveur Ousmane Sonko euh, cour suprême da ko annulé démb. yéenekaay bi di Dakar Presse moom mu ngi dellu siwaat mu ne Sonko perd deux manches maanaam ñaari ñaari yi nga xam ne moo waroon a tukkee ci cour suprême ak li nga xam ne waroon a tukkee ci euh, cour de justice de la CEDEAO ñaar yëpp Ousmane Sonko da ko ñàkk. lii la yéenekaay bi di Dakar Presse wax mu nekkoon euh, seen revue de presse ngen àndoon ci ak Souleymane Ndiaye ñu ngi leen ci jaajëfal ba altine ak jàmm la revue de presse de Souleymane Ndiaye yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye